forestier bi dafa aye woon ci aawo bi gannaaw bi mu dellu seen ak ca kër ñaareel bi yaakaar ne lu neex la fay fekk ndekete woo maara de taali ndax forestier bi bi mu dellu see kër ñaareel bi dafa bett commerçant bii di xaritam ak jabaram ci kaw lalam ëppatalaw ma ne la ko bett waa sangoo mbàjjam laa mbir mi nag nee ñu mu ngi xew guddi samedi jëm dimanche ca Tambacounda ca quartier Gurelama yëf yi nag nee ñu nii la demee jabaru forestier bi dafa dégg riiru oto ndekete riiru oto boobu du lenn lu dul riiru oto jëkkër ji fekk boobu xaritu jëkkër bi di commerçant bi mook jabar gee fanaan jabar ji nag bi mu déggee riiru oto bi ba génn ci la dal di paniqué maanaam tiit bi mu ubbee bunt bi rek dal di yem ci borom këram ay ay ma ne ko caaf xam na de naka noonu mu ne ko yeg si nga jëkkër ji ne ko waaw dal di dugg ci néeg bi jëkër ji nag bi mu duggee ci néegam ci la gisee ku sangu tëdd ci kaw lalam mu laaj jabar gi ne ko waaw kii sangu nii ku mu ndaw si ne ko yaayam la ne ko saabu fi nekkul yaayam mooy ñaw di ko wettali xoolal ma yi kàcc yu jub rek naka noonu jëkkër ji xel mi ñaaw na waaye mu toog rek bu mu demee ba muñatu ko muñ ci la muree mbàjj bi yem ci xarit bi di commerçant bi ay waay ay waay ma ne fekk boobu xarit baa ngi ne dung laa wax jëkkëru ndaw si nag fi muy waxee ak xarit bi rek xarit bi daal koy fëgg kurfañ jëkkër gi wàcc ma xarit bi noonu la génnee daw laa wax ak ay taati neenam naka noonu ci la ko waa ji toppee ak yeneen gaay yi dàqi ko ba ne ko niib ma ne leen waaw góore waay ma ne boobu di xaritu waa ji nag bi koy jàpp dung la def laa wax noonu mu dung nag noonu lañ ko watatee yóbbu police la wax ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi xoolal ma gi kersa rek jabar ji nag yoon teg na ko loxo diko ko toppee li ñaan adultère wolof di ko wax njaaloo ma ne waaye liy ci réew mi ëpp na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca mbuur romb na doy war ab ancien militaire daal boo xam ne mujj gi ab vigile la moo fa mbubboone policier la dal di violer ab xale bu ndaw bu am 15 ans ëpp low ma ne ancien militaire foo policier mu ngi wuyoo ci turu Dembeng am lu toll ci fanweeri at ak juróom moom daal xale mineur bi di M Kandji am 15 ans di as ngone su jigéen moo jàppante woon ak ay way juram naka noonu mu faq génn kër gi ay guddi nag bi muy dox ci mbedd mi ci la dajee ak Dembeng di faux police boobu fekk boobu mu ngi ci moto naka noonu ci la intercepté xale bu ndaw bu jigéen bi ne ko koy watat yóbbu bu këram fanaane koo wiyole ba bët set la wax ay waay yëpp na dee ma bi mu fanaanee violé xale bi ba bët set naka noonu nag ci la ko joxee mille francs ne ko bu ngoonee nga dellu xale bu jigéen bi bi mu joge kër faux policier bi kër copain la dem copain bi ab électricien bâtiment la daa di fa yendu bi mu fa yendoo tamit copain bi yendal ko ca moom it xale bu jigéen bi nag di deekaan bi mu yëgee ne doomam faq ma nga ca quartier bay dëkk naka noonu cala la fa demee fekk fa doomam bu jigéen daal di koy jël yóbbu bi mu ko yóbboo kër ga nag di waxtaan ak moom xale bu jigéen bi ci la ko waxee ni ab policier moo ko for ci guddi gi daal di koy yóbbu këram violé ko bi mu fa jógee tamit mu dem kër copain bi copain bi tamit daal di koy violé ay way ay way papa ji nag bi mu amee information yooyu yëpp naka noonu ci la porté plainte ci la way takk der yi daal daal demee kër faux policier bi dal di koy teg loxo dem kër copain bi tamit daal di koy teg loxo copain bi na fi mën a yor min koy toppee li ñu naan viol répétitif ki nga xam ne nag mooy faux policier bi fi mu ne yoonam koy toppee liñ naan viol détournement de mineur ak séquestration way <laughs> way waay waay dëkk bi dana tas moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax violence bi am ci réew mi ëpp na la wax ma ne la xew ci stade Ngalandou Diouf romb na doy war ñaari équipe daal ñoo fa doon football demi-finale benn équipe bi di cawleen beneen ba di ngif naka noonu bi benn bit duggee Tek. la supporter yi wàcc ca terrain ba jàppal bàyyil bi dal di tàmbalee naka noonu buuxante bi dal di tar ba ab miir dal di fay daanu faat fa benn bakkanu doomu aadama ne li xew ci réew mi ëpp na la wax ma ne supporter yi yemuñu foofu dee ndax stade ba la ñu jàpp dal di koy caxat-caxatee laa wax taal stade ba kanang noog li xewoon ci combat Siteu beeg Papa Sow ba ñu xaañ Papa Sow ba combat ba mujjul am ma ne étudiant yu Bambey waaye tamit yëngal nañ ndax jàppante way takk der yi la ñu def ba teg ca ñaari way takk der loxo waay waay réew mi li fi xew ëpp na laa wax ne réew mi war nañ koo sang mu mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz